jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii nag ci CNG seet si fi ki nga xamante ne vraiment moo yor làmb muy suñu papa suñu kilifa di président Bira Sène moom la fas yéene seet si waxtaan ak moom lu baree bari ci wàllu làmb programme làmb yi ak li nga xamante ne mooy jot na fi xew bilan bi nan la ko gisee loolu yëpp nañ ci waxtaan ak moom dañuy dugg ci biir xool président Bira nan la nekkee ci bureau bi nan la fas yéene di door waar aadama président biir a xolam bëri ñëpp ay champion lañ ku ne def na dara ci réew mi kay da ci fëgg salaamaaleykum président président ñu ngi lay siyaar noo def mbaa yaa ngi ci jàmm yaa am baax. alhamdulilah. waaw maa ngi nii de. na ngeen def ñu ngi sant yàlla. maa ngi si bu baax. sant bu baax baax alhamdulilah bett ba <laughs> ba kay. Ah. waaw. Ah, ñu ngi lay jaajëfal de parce que ñëpp nee nañ président Bira. biroom du tëju. ubbil na buntam ñëpp. Mm-hmm. Ah, tey wane na ko. Mm-hmm. ndax ñëw nañ rek fekk la fi bëgg a waxtaan ak yow waxtaan bu yaatoo yaatoo yaatu ci wàllu lamb. incha allah làmb làmb demee noonu. làmb dafa yaatu. kon nag li suñu devoir mooy ñuy yaatal rek te yaatu ubbi suñuy bunt pour que bu ñu dara mun a bett ci mbirum làmb ji moom moo tax ñu aussi ñu dëppoo noonu et puis xam ne équipe la daal ñun ñëpp ko bokk ñun dañ ko war di waxtaanee di ci diisoo bokk jëmukaay xam également euh, jëmukaay bi fan la xam fi ñuy dal ak fi ñu dul dal donc loolu am na solo trop. Hmm? kon toog fas yéene waxtaan ak président Bira Adama bisimilah. mbokk yi dégg ngeen ko léegi ni ñu ci suñu ouverture président Bira la ñu dalal nekk suñu papa koo xamante ne vraiment bi mu nekkee ci CNG bi ba tey képp ku nekk ci làmb gis nga ci sa bopp rawatina presse en ligne bi saa su rek bu jafe-jafe amee ci làmb boo xamante ne du mën a ñàkk wala ñàkk déggoo ci ñi ñu bokkal liggéey bi muy promoteur bi day ñu am ci taxawaay bu rafet. te loolu lañ doon xaar ci moom te moom lañ gis ci moom ñu koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëwal waxtaan bi président maa ngi lay nuyu baax di la siyaar ci eh, Wassare Lamb nuyu naa la mm. di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu ak lu làmb di nuyu sénégalais yëpp di dollu rafetlu seen liggéey seen taxawaay ci làmb yi mm. eh, li nga xam ne mooy sport de chez nous vraiment gis nañ ne am ngeen ci taxawaay bu mucc ayib mm. lañ ci félicité lañ ci encouragé. Hmm. président bilan bi. Hmm. bilan bi bi xew ci làmb ji actuellement. Hmm. lan nga ko tiire. <laughs> bon en fait xam nga da ngeen bëgg bilan mais bilan jotagul nag. ñu defaguñu bilan. door nañ daal depuis octobre premier octobre ba léegi ñu ngi ci saison bi. mun nañ ne ñu ngi ci euh, mi parcours maanaam xaajal nañ daanaka. Euh, fas yéene jëm le 31 juillet incha allah rabi. Hmm. bu fekkee ne amul dérogation amul dara amul prolongation. Hmm. alors euh, ci la yemale saison boobaa. Hmm. Euh, am na nag affiche yu romb. affiche neex jàll nañ fi. ba weekend bi passé rek gis ngeen Bombardier ak Eumeu Sène. mu ne ko affiche bu neex di amateur ñëw moom ambiance. trop hein organisation bu ci ayib. ma hmm. di ci félicité di encouragé la promoteur Gaston Mbengue mi ko tëggoon. Hmm. alors di ci encouragé mbëri ci bokk rek amateur yi ñëwoon. Hmm. Euh, loolu euh, bu amee mun na ne ñu ngi dawal daal. bon danañ dem nag ci trêve lañ jëm pause. ndax weeru koor bi. à la semaine prochaine. dañ def weer boo xam ne euh, duñ dëgg làmb. Euh, mais bu jeexee rek bon am nañu programme yu mag a yoo xam ne mois de mais bi moom. Hmm. ni ngeen ko waxee rek c'est mois de mais sans répit. Hmm. ndax dañuy dem ci drapeau chef de l'État jóge fa week bu nekk am na ay combats. Hmm. alors yooyu yëpp ñu fa yéene ci gunge promoteurs yi encadré leen. jàppale leen ba seeni i euh, mun mën a am. bon loolu lañ mën a wax mais bilan euh, defaguñu ko. suba sa am nañ comité directeur. Mhm. fii ci arène nationale. Mhm. CD pour waxtaan ci mbirum làmb ji fi ñu ci toll. Mhm. ñu ci def liñ ci defagul. li ñu war a li ñu mbëbët pour def ko. ak aussi naka lañ ci taxawee. ndaxte war ngaa rek yëgoo comme lañ ko seq ak suñuy nawle. suñuy naataangoo ñu bokk comité directeur bokk arrêté. day rafet léeg-léeg euh, bu ñu dawalee ay deux mois trois mois ñu toog waxtaan bon réunion mujj bi le huit janvier la woon. ñu toog waxtaan naat seet li nga xam ne vraiment euh, jub na euh, ñu taxawal ko gën cee góorgóorlu li nga xam ne tamit nekk na loo xam ne ay ndëngte yu ndaw la woon ñu redressé. Hmm. avancé loolu mooy vraiment ànd mooy doxal yi hmm. hmm. euh, wax nañ ko ne président Bira day waxtaan ak ñu bari. te fan yi gis nañ làmb engouement bi mu am. mais dafa dañu gis loo xamante ni daawuñu ko gis ci làmb. mooy bu mbër daanee supporter mbër yi damm siis euh, yàq lu baree bari loo xamante ni ñun ñoo ko moom loolu CNG bi matuwaay bi ñu ci jël euh, bu bu supporter yi yàqee ñu ñu ñu mbër bi euh, loolu taxawaay bi lan la bon xam nga lépp loo gis rek hmm. dañ koy teg ci règlement hmm. ndaxte CNG bu tëralee ab règlement wax ne mbër mi su bëree. Hmm. bu daanee bu daanoo. machine hmm. yooyu yëpp infrastructure maanaam jumtukaay yi dañ ko fi war a bàyyi dañ ko fa fekkee. Hmm. kenn amul sañ-sañ kenn amul droit di ko yàq. ñu ne lépp lu jëm ci loolee ku ko yàq aussi bu fekkee mbër mi la sanction dana am sa kaw. bu fekkee ña nga àndal la sanction dana dal sa kaw. ci kaw mbër mi waa ci kaw mbër mi. mbër xam nañ ko. te xam nga li ñuy wax rek la première police c'est d'abord les. écuries et écoles de lutte c'est le lutteur lui-même c'est l'encadrement de lutteur ñoo ñu amee sécurité bi d'abord. Hmm. maanaam bu ñu demee ci koñ bi. Hmm. bu ñëwee seen open press yi wala boog bu ñuy waaj waaj def seen waajtaay pour ñëw ci arène bi. Hmm. wala di waxtaan ak ñi leen di topp ñun ñu ngi dem ba dañu uti yàlla moom moom ndam. moo koy maye. ak lu mënti xew buñ tooñ kenn bu ñu tooñ buur bu ñu tooñ suñu naataango buñ bu ñu tooñ suñu adversaire bu ñu tooñ suñu bopp. Mhm. nañ dem supporter may doole mbër mi bëri ñu dem loolu écrit moo koy def mhm. mbër ci open presse am tamit da koy def mais quand même bu fekkee ne dañoo ñëw daan nañ la wala nga daan rek wala kontaan ma yàq chaise mhm. loolu tegul fenn surtout loo xam ne lu toll ni arène nationale ñu def eh, avant indépendance ba indépendance ñu di ko laaj di ko laaj di ko laaj di ko laaj ba yàlla def mon excellent monsieur Macky ma leen gërëm leen defal ñu lii képp kuy sénégale képp koo xam ne yaa ngi safoo ak lu làmb safoo safoo làmb war nga ñëw taxaw ci vraiment ñu topp hmm, hmm. gis nañ loolu defar nañ ko ba sièges yi ñu yàquwoon yëpp euh, amaana defaraat nañ ko ba mu ñoŋ mais est-ce que du manque de sécurité day walal xale yi di yàq sièges yi ndax yaakaar naa bu ñu demee au niveau comme di seetaan football yi gis stade bi ni muy bindoo. un mètre bu nekk ñu bàyyi fa benn policier wala deux mètres bu nekk ñu bàyyi fa benn policier est que ci kaw bu amoon loolu euh, dina tax supporters yi dootuñu mën a yàq siège parce que chaque instant rek ñu gis service d'ordre bi mu ngi jàkkaarloo ñoom. waaw loolu xam nga bay daanaka mooy rek nga seetaan laa bu ñu teg la pression. Mm-hmm. ne fu waaye taxaw alkaati taxaw foofu loolu sax mënul nekk. Mm-hmm. wala boog alkaati yi bëri fi bëri boo xam ne fii suñu làmb li fi nekk ci doomu alkaati. man plus alkaati yu bëri. Hmm. man suma xol du neex. parce que dama hmm. ne suma njaboot dafa tëradi kon. Hmm. mais bu ñu toogoon ba nga xam ne làmb am na ñu gis fa juróom fukki alkaati wala téeméeri alkaati au lieu que ñu indi fi ma ne voilà kon nag njabooti làmb ak lu làmb comprendre nañ message. mais tànk jumtukaay yi takk dar yi muy bëri ci arène bi rek am nañ liggéey encore. te loolu rafetul. Hmm. waruñ def loolu. Hmm. dañ seet ne ñiy ñëw fii bu ñu nekkee junne wala juróom-ñetti téeméer ñëw taw fii am na ñeneen ñoo xam ne xëy na ñu ngi feneen soxla nañ lu mel noonu wala soxla ay kaaraange. donc ñun lu ñuy am dafa dafa dafa dafa bari loo xam ne dafa am lecture. boo ci hmm. def lecture mooy que ne ak lu làmb kon dañoo tëral moo tax ñu di fi indi takku dar yu toll nii loolu ñu ñëpp ko war a xeex na. dem nañ gis sax ñu indi ay xaj. te loolu loolu. yooyu yooyu saare saare ko hmm. dong man suñu njaboot moo kon. Hmm. te loolu rafetul ñu koy def ñi tax loolu am bëriwunu ñi ci ëpp ci axlu làmb. Hmm. ñu lañ ay gor lañ ay garmi ñoo xam ne ñëw seetaan làmb rek moo leen di indi. bu paree pare nañ ñi di mais amuñu ñuy rax ba léegi foo taxaw nit ñi wax noonu ndax surtout loolu mais làmb mel noonu làmb affaire noble la. te gis nañ ko wane nañ ko également. tey léeg-léeg ñooy dem ci yenn hôtel yi dem ci yenn espace yi. Eh, wane fa seen bopp solo ba jekk ñëw taxaw def livrer ay message yu am solo mm-hmm. loolu waa làmb ñoo moom loolu gisu ko ci benn sport fii au Sénégal mm-hmm. kon ñun nañ góorgóorlu be alkaat yi wala gendarme yi li muy ñëw wala eh, ak seen jumtukaay yu bari yi ñu koy indi fii ñu dem ba vraiment suñu njaboot gën a teey mm-hmm. hmm? am comprendre exemple ba nga xam loolu dañ koy wàññi tant que mu ngi yokk rek cela veut dire que am na liggéey ci war discipline te boobu nag ñun ñoo ko moom ñëpp ñoo ci war a wax hmm, waa gis nañ fan yee hmm. euh, butéel yi dañoo jékki-jékki woon ne mbëri maytuñ leen lu weesu juróomi butéel. Hmm. ñu jékki-jékki ne fukki butéel léegi lañ may grand combat mais gis nañ mbëri yu mag yi ci mel ni tey booy xool Eumeu Sène ak euh, Bombardier seen làmb ji presque butéel yooyu dépassé nañu ko léegi buñ ñu dépassé butéel yi ñu leen mayoon. CNG bi règlement bi lan la lan lay wax ci ñoom. xam nga foofu CNG bi dafa ne. Hmm. xam nga li indi loolu rek gis nga loi règlement bu am rek am na lu tax. Hmm. gis nga combat boo xam ne butéel yi bëri nañ ba jéggi dayoo. Hmm. temps de préparation bu jéggi dayoo la bu ñu guddi. léegi loolu dafay tàkk. di defi circulaire génne ko léegi may nañ bëri ku nekk juróomi butéel cinq de préparation. su mu génnee tamit ñoom ñëw nañ ñaan si. ne ñu may leen ñu def ko fukki butéel mhm. ak quinze bi de préparation pour grand combat petit combat cinq butéel ak cinq mhm. nangu leen ko may leen ko may ko ba gis nga comme ni ko waxee dañuy ñëw déborder ñu ne ku wàccoowul ak loolu mhm. règlement nooy daan boo ëppalee butéel règlement nooy daan minutes yi nga am pour préparer soo ko ëppalee tamit règlement daan ñëpp jot ñépp nangu ko d' accord ko parce que bi ñuy def seen président mu ngi toog ñu réunion ak moom. Hmm. manager yi toog ñu réunion ak ñoom. Hmm. amateur toog ñu réunion ak ñoom. Hmm. kon jeexal nañ ci ak lu làmb ñu ba toogoon. ñu d' ñu ne may lay ñu lii ñu ne boo daañu ko may waaye bu kenn jalgati pour ñu ko d' accord. ñu ko waxee barke tey ñu wax ne nañ ko ñooñu règlement leen daan. kon ñi xamul dañoo war a xam ni président Bira du day jékki-jékki rek. jël bind ne mbër mu def lii lii waaye dañuy toog ñoom ñëpp ba ci ah, mbëri ah, ba ci ah. président mbëri diisoo du ma tëju fii rek mhm. bind lu ma neex wala bind lu su ma su ñëw sama xel non mhm. danay sumu xalaatee naa ci réunion bi mhm. maag collaborateur ñu càmbar ko seet ko gën a rafetee ñu defee bu ñu weesoo foofu tamit ñi nga xam ne axul làmb ñu ngi fii léegi dañu di woon kaay leen parce que problème bi moo am lii lañ bëgg a def li lañ ci xalaat ñoom lii lañ ci xalaat ñu discuter ko léeg-léeg aussi ñu xalaat biro daal di génne kayit parce que aussi loolu règlement moo ñu may loolu mën nañ toog fii réunion te li mooy doxal làmb ji ça va dans l'intérêt supérieur de la lutte mm. ñu def loolu mais bi passé ci affaire bi ñuy wax domaine bii nii franchement wax nañ ci ak ñëpp ak lu làmb wax nañ leen ci ñoom d'accord nañ ci ne loolu wax ngeen dëgg dafay guddee mm. ci yoo xam ne du tegu fen toog di préparer préparation bu jeex amul fenn. Hmm. teg ay butéel yoo xam ñaari cumbukaay aussi loolu amul fenn loolu au yàq la hmm. dañu d'accord ci loolu ñu na lii mais gis nga ba léegi am na ñoo xam dañuy dañuy jalgati loolu boo ko jalgatee nag vraiment yow day dem sa kaw donc là tu n'as pas commenté quoi que ce soit mu dara la wax bu ko rek dugal ndey ñun buñ sañoon duñ dagg kenn benn dërëm duñ sanctionné kenn hmm. duñ aj kenn mais day fekk nit ñi aussi dëppoog li règlement bi te ay yenn njuumte yu ndaw yoo xam ne mën nañ ko toléré parce que ñu ngi toléré yu bëree bëri yu nga xam ne yëgu leen ko. Hmm. loolu mooy ñu mooy suñu mission bokk na suñu mission mais nag dafa nag ñu encadré làmb ji ba mu tegu ci yoon tegu ci ay raay loolu mooy def mais ñu ngi ci liggéey également kon li ñu ñaan nit ñi rek mooy mooy mbëri yi. Hmm. muy amateur waa POV ñun ñëpp ñu taxaw taxawaay bu tax ñu xam ne lii mooy defar làmb. képp ko am xalaat bu baax ci làmb boo ko indee fii dañ ko càmpar seet ko bu ñu ko mën a intégré ci texte ñu intégré ko ci texte te fi mu ne nii sax en parlant texte ñu ngi ngi defar euh, ay règlement yu bees. Mm-hmm. ñu càmbar di ko seetaat pour que ñu jéem a adapté wu parce que am nañu. Mm-hmm. Euh, ba bëgg romb réglement yi fi noonu loolu mooy corrigé bon def nañ le premier jet après dañ ko euh, wax ci comité directeur bi ñëw bu ko defee. partage ko ñu nangu rapidement ñu yónnee ko ministère et bu ñu amee retour bi ñu commencé ko appliquer. Hmm. gis nañ ko mel ni Omar euh, Sène barki démb dégg nañ dafa jaar ci tribunal la CNG bi dagg ko un million CNG bi kon léegi dañuy tere mbër mi acteur principal mu am fu may jaar ak fu mu dul jaar. Hmm. Hmm. la Mm. bunt bi mbër yi war a jaar mm. bi mooy bunt euh, ci dégg-dégg ak ci bët mm. rafetul mbër loge officielle officielle fi autorité yi toog mbër mi kenn bi ak staffam ak akomaay bi ñëw de foofu lay jaar est-ce que loolu xel nanguwu ñëw nañ dafa war ñuy jaar ñuy wax ñu insisté man maa jóg ne nañ ah ci du yoon wi jiw lañ ci yi bu fekkee dafa insister bu leen leen def dara ñoom bu ñu fekkee dañoo ñëw forcé hmm. leen bàyyi ànd ak mbër mi yooyu manager yi xamal ne bu ngeen jaare fii tey mën nañ daan waaye ko. ci hmm. nag kenn ku nekk di buuxante kooku ne ma mais président comme fa la ñuy jaar man ne bunt mais président xam nga ni làmb dafa am ay tegtal ñu jóge fa hmm. eh, dañ jaare ci annexe loge hmm. ba léegi ci jal jalgati mu continuer waaw làmb am na tegtal hmm. nangul naa leen ko am na tegtal mais làmb si am na règlement dëgg la choisir la entre tegtal tegtal bi ak règlement jërëjëf président boo tànnee tegtal nangul règlement de ah. boo nangoo rajo ma nag nga bàyyi ko sa projet ñun ñëpp ñaar mais nag da ngay boo defee sa choix nag ba pare. Mm-hmm. da nga assumer. bàyyi CNG bi mu def liggéey mu def liggéey effectivement. loolu moom am na solo parce que ñi xamul. Mm-hmm. ñu bëree bëri dañu jàpp ni. wàcc làmb ji fu la neex nga wàcce mais règlement bi dafa am porte bu mu la may. foofu nga war a duggee. làmb ji amul fu la neex. wala lu neex def wala fu la neex jaar lii am na bunt boo war a jaar. xam nga déjà boo seetee bi ñuy wàcc. Hmm. jël na temps d' la mu jaar foofu ëpp na. ensuite am na ñoo xamante ne xam ne toog nañ gêné nañ hmm. am na ñoo xam ne xëy na sax euh, bousculé nañ ñuy ñi. Hmm. amateur bi am ay bëtam am fu di xaar di sindi mbir mi nag teel a léegi ñëw léegi jaar foofu ñu toog gis ko mu wàcc ci tribune non doon doon mbir mi la sax parce que loolu mbir mi moomu wàccee ci tribune. dafa bunt buy jaaree. Hmm. maintenant soo amee say ko nag nga choisir entre tel ak règlement ñoo xam hmm. nañ ko xam nañ ko c'est xam nga li ci nekk yenn amateur yi wala yenn nit ñi ñooy commenté ci yenn yoo xam ne. Hmm. mbër moo la gën a xam ne li ma def nii jaadu waaye jaral na ma. dafa am loo xam ne yéen da ngeen koy yëg wala du ngeen ko dégg. xam nga léeg-léeg arbitre wax mbër ne ko mais gaawal sa temps bi jeex na. temps bi jeex na. mu ne ko noonu mu ne mu ne ko dagg lu leen neex. Mhm. loolu man teg loolu man teg naa ci sama bët. yow. Mhm. ma ne man damay waaj ba saa mu paree. Mhm. xam nga mbër mu dem doo ko ne ko ci loxo ñoom ko ne kay sa gom nga wax ak moom. mu ne non pareegu ma. mu ne temps xam nga dafay minute na nga mun a daggal lu leen neex xam nga wax na ko foofu. mais kenn ci tribune fële dégg ko. bu déggee tàgg nañ ko rek mu ne wooy CNG na nga mbër mi ko santaane moo wax loolu moo ne tàgg leen leen neex ñu ne ñu waaye ñu ñu nga ëppale ci règlement bi hmm. mooy li li indi rek jaar foo war a jaar ñu wax nañ ne fii de waroo jaar da nga war a jaar yow nga ne ma tegtal nga ne ko boo toppee tegtal règlement bi day dal sa kaw nga ne man tegtal bi lay day topp amatul coow kenn ci wax daal dañu war a maasal rek man maa ko man maa ko def hmm. sama ndam suñu jaral na ma. Hmm. ma jalgati règlement ñu dagg ma ñaari dërëm wala million. léegi cinq minutes bi ñu lay may ci diggu géew hmm. boo ko weesoo minute bu nekk CNG bi ñaata la ci def. minute bu nekk bi dix mille francs la. ñu nekk ci enceinte bi. waaw soo nekkee ci biir pare woo xam nga lay pare. Hmm. dañ ne mbër bu ñu la ooyee. war nga dugg ci ah, ci ci géew gi. en de combat et prêt à combattre. boo pare maanaam yow su nekkul. suñu nga say dàll hmm. pare hmm. hmm. mais nekk fi góor naan ñëw pare boo def su mu sumb sumb sa dàll ñëw taxaw ne at pare naa pare pare bu pare dañu at pare naa mais yéen su may ko rek ngeen di gis ne su may ko du nga ko sa dàll dàll dàll yaat mu ngi sol dàll ba lii ba tey pareegul moom saa pare day arrêté pare na wala léegi pare du ko de est ce que pare nga mu ne ko pare guñ gis naa ñaari butéel gis naa ñetti butéel gis naa benn butéel yooyu ak aussi du la jàpp ba gis arbitre taxaw leen di xool du ñu leen laal hmm. loolu mooy pare pare bi mbër mi wax mooy wax ne pare naa yow boo mun nga pare te sa pare hmm. mbër mi léeg-léeg mu pare te sax adversaire pare wu mais na pare doo ne pare na hmm. arbitre constaté pare yow pare tamit mu ne pare na ñu ne waa kii am na dépassement nanga mu ñi kii am na dépassement nanga mu ñi donc hmm. euh, foofee amul amul benn problème boo xam ne CNG au contraire léeg sax CNG may la ay minutes yoo xam ne war na ko may parce que arbitre bi wala le chronomètre parfois mu am tolérance tuuti. Hmm. parce que nga dépassé bàyyi ko nii parce que peut être am yàqu ci li compagnie hmm. mais am na yoo xam ne vraiment dafa dafa li am keroog dimanche bëri ñoom ñoo. ñu assumer seen responsabilité ñoom ñoo def li ñu def kon nag gën naa ne ku nekk mën na assumer responsabilité en tout cas jotaguma benn réclamation parce que moom jàpp naa ne xëy na kon bëri ñoom nangu nañu ñoo ko def assumer nañu point mm. loolu nag mooy nga fóot xam nga bi la ci wax nga ne je l'assume ma mm. ne naa ko maa parce que sama tegtal ma am victoire moo ma gënal lu ma am naa yaakaar ne xëy na bon ki nga xam ne mooy jaay ci commune bi nekk xelam méngoo na ak la mu aussi parce que am na ndam. Hmm. daal làmb yi ñu bari dañu naan dañuy def ni bu CNG bi ne aj nañ diw. Hmm. trois mois wala un an ñu ñaan ne baal ko bu ñu nee dagg nañ xaalis mbër ñu ne nañ ko baal parce que dagg bi dafa métti léegi CNG bi bu dee ku tooñ ñu la baal ko bu baal ku dagg xaalisam ñu la baal ko bu baal ban méthode la CNG bi fas yéene jël pour daan mbër ndax mbër moom. président dafa laqaree. dafa laqaree xanaa ñoom ñi nga xam ne. ñi wax ne ñu baal ko. wala buñ ñu yi wala ñu wàññi ñooñu la ñuy wax ban solution lañ mën a ba jaar yoon. parce que li ñu bu buñ ko deful. Hmm. nit dana toog fii làmb war a am ñu toog bi minute te bëri bi sëkk. te xam nga amateur lu tax mu paas. Hmm. amateur tax mu paas mooy ñu ñëw euh, seetaan tuus bu neex. c'est-à-dire dugub bi sax dugub bi dafa bokk ci avancé di di paas. dugub mhm. dugub bi. daa bokk ci charme lamb dugub bi rek. Mhm. ensuite tuus bi jaagar jaagar ci biir dugub wàccaay bi ci biir. Mhm. ak bëri bu fekkee ne mbër mi rek ko bëgg a xañ volontairement amateurs yi mais ama dafay léser amateurs yi dafay léser. te loolu yoon ku nekk sa partition nga ko war a ji. mbër mi war na dugg si. bëre parce que bëre moo tax mu ñëw pour évidemment euh, mu honoré contrat. Mm-hmm. te contrat bi ñu bind ne mbër bu ñëwee war na ànd ak nit. Mm-hmm. mbër mi war na ñëw bu ñëwee duggee war dafa war a tuus. mbër war war a dafa indi batterie maanaam ku ko tëggal. Mm-hmm. dafa nekk ci contrat bi daf dañ ko ci def. alors yooyu donc c'est des étapes yoo xam ne balaa mu bëri war na ko def mais à temps dañ ko ne boo duggee wax nga baax. gannaaw ba ngay sa sa sa ñi wax naan aj nañ li aj nañ ko ku def ku deful lu tax ñu aj dañu la aj mhm. mais boo def dañu aj dañu lay aj bu ñu la nag nit ñi naan nañ ko baal nañ ko baal nañ ko baal nañ ko baal finalement doo ko sax ngay def nañ ko baal bi dafa am maanaam vous savez gis nga règlement bi dafa yow boo amee réclamation mhm. maanaam recours nga joxe temps mhm. bu fekkee ne recours boobu jàpp na wala jàppul amul lu ci neexul lu ci naqari nga droit nga def appel Mm-hmm. buñ defee lu la neex diir te nga yëg bu neex nga def appel tamit bu fekkee tamit li nga wax da cee d'accord nga def mm-hmm. appel. bu jeexee nag boo defee appel benn yoon jeex na mu mm-hmm. bu nekkee nag ne baal nañu ko boobu maanaam mbër mu ngi purgé ñu dañ ko baal dafa am yoon. yoon wu mooy demande de grâce. maa ngi jéggul man diw. léegi ma daan nangu naa ko xam naa ko. Mhm. lu ma bett la dootul am. maa ngi ciy jégalu dinaa wax képp koo xam ne déggal na ma defar loolu. loolu muy demande bi loolu nag da koy koy motiver. Mhm. loolu gis naa ko ci ku mel ni Serigne Ndiaye de Doudou ak ñoom ñooñu bi leen ajee bi ñu bindee CNG bi dafa boole ñëpp baal leen. mais président ci ci recours bi laay ñëw ñaari mbër yu bëre sit am benn mbër bi ne moo daan action bi jëkk bi kii ne moo daan ñu bind recours. que bi dégg naa day ànd ak vingt cinq mille francs vingt cinq mille yooyu mbër mi am ndam puisque règlement bi du ko mën a permettre bu fekkee dañu arbitre yi dañu juum ñu bind recours joxe vingt cinq mille ñu delloowaat ko li li mu am joxaale wa ko xaalisam bu dee moom mooy mooy rek la lancinante question du retour des de hmm. recours maanaam ñu yàgg na ñuy laaj ne hmm. maanaam bu fekkee da nga def recours boo gañee ñu delloo la hmm. boo gañewul nga ñàkk nga ñàkk sa xaalis mhm. loolu yëpp bokk na ci encadrement mhm. mais xam nga recours aussi recours boo gis réclamation boo gis ci sport rek am na mhm. frais dafa am c'est pour que nit ñi bu ñu caaxaandi recours toog rek am naa wenn cinq mille bon naa naa ko def naa ko def boo ko defee ci yenn làmb yi par exemple mais du yegg comme làmb simple da ngay def recours léegi ñu xool ko léegi jox la ndam wala jox la victoire wala ñu xañ xañ bu fekkee nag ne yomb na d'abord dañu dañ koy benn ñaareel la dafa ay droit mhm. yaa ngi réclamé lii am man lii laa gis na droit mhm. pour le moment am nañu ko teg suñu table ne pour ñu Sénégal yi de bee euh, bu fekkee ne def nga sa recours nga am gain de maanaam nga gañ ñu mhm. jox la sa victoire ak sa xaalis dalal sa xaalis wax mais xoolaguñu point di ngeen ko càmbar mhm. bu ñu toogee ci assemblée générale dañ mhm. ko woote incha allah. Mhm. kooku du ko waxee rek jërëjëf am na solo nii nii rek yaa ngi nekk ci yoon waaye maa ngi lay bu baax ci temps bi nga xamante ni eh, jël naa ko ci yow. dernière question bi nag mooy drapeau chef de l'État lan lan lañ ci mën a séentu. ci lu bees loo xamante ni CNG bi dina ko indi. merci Pape Cheikh Dara ni euh, mu ngi amee hmm. hmm. hmm. am nag ay copp. mag parce que léegi d' bu ñu war a pare comme suba teel a ñu koy encore. Euh, boole dafa indi nañ open xam nga open amoon danoon open hmm. mais dañ ko indi woon indi pare ci parce que grave résultat open moo ko doon nekk hmm. maanaam da ngay jël ñu jël nekk quatre vingt six kilos hmm. ak cent kilos ak cent vingt kilos nga boole ko tirage ñooñu bëri aussi ñooñu open beneen coppite bi mooy xam nga dafa amoon limite limite de poids ci cent vingt dafa amoon cent vingt kilos xam nga boo koy cent vingt kilos boo koy daal ñu xool ne loolu injustice la maanaam jaadu mhm. ndaxte mbër yi nga xam ne dañuy bëri fii ci Adrien Senghor gaal bi domarke bi bëri san di bëri ci yëpp mhm. am na ëpp nañ cent vingt cinq kilos mhm. te dañ le drapeau solidaire c'est que tous les Sénégalais licenciés au CNG ñu ko cee benn kenn loolu moo tax nañ indi poids bi ñu yóbbu ko comme au niveau de l'Afrique Sud africaine waxuñu yëpp cent vingt dañ cent et cent cinquante plus. cent cent quarante dañoo la yi même boo da ngay bëri. parce que dañuy doon suñu arène aussi. loolu mooy yoon. macha allah léegi ñu protégé mbër yëpp. bëri ko parce que c' la plus haute manifestation publique au Sénégal. aussi ñu xam ko. compétition bu gën a rëy moom la ñetti fan la yoo xam ne dañ koy direct. Mhm. ñi Sénégal yëpp jot ci seeraan ko. mobilisation am engouement ci dëkk ba. Mhm. yëkkatiwaat koom-koom dëkk ba neexal dëkk ba. Mhm. am koppar yu bëri yoo xam ne ñu neexalee mbir yi ñoo xam ne ñoo cee vraiment. ren moom Drapeau sur le xam naa ne amateurs yi daañu ci kontaan parce que am na innovation yu taal yi xam naa suñu làmb ji di sport de chez nous jërëjëf président maa ngi lay jaajëfal bu baax kontaan bu baax a baax baax ci dalal bi. merci si Wassare. Hmm. maa ngi lay nuyuwaat encore une fois. Hmm. di leen jox rendez-vous beneen yoon. Hmm. ah di encourager seen euh, seen presse bi. Eh, vraiment presse en ligne bi am na solo trop ci réew mi. ñu ko rek ne en vérité mooy suñu mooy suñu accompagnateur. Eh. maanaam suñu partenaire ngeen. ñu leen di jox di daje incha allah. Euh, après koor bi. incha allah ci Diourbel. incha allah hmm. ñu ngi relayer vraiment événement bi. incha allah jërëjëf président Bira jërëjëf. merci